Assalamualaikum, gamang maa ngi leen di nuyuwaat di dalal ak jàmm ci Sen Sport 220 the best sport channel Ibrahima Niang du jouer ci match bu mujj bi nga xamanteni FC Metz war nañu ko am ci weekend bi sen digent ak Olympique de Marseille ne ko ci coach bi nga xamanteni moy tagat FC Metz dal dinañ xam ne ne Ibrahima Niang dafa am blessure Manam ben bal dal dal ci li nga xamanteni moy ci beutam dafa jot ben ballon ci beutam. Lolu warana ba mom du jël ben risque ngir jouer lo ki nga xamanteni moy Ibrahima Niang ci dimanche ji ñu war a jouer seen diggante ak Olympique de Marseille boobu sax mooy nekk match bu mujj ci saison bi Ibrahima Niane ci fàttali moom dafa jóge woon ci blessure bi nga xamante ne jëloon na ko ay weer bi mu ñëwee ak léegi ñetti match rek la joué comme titulaire waaye daal jamono yi jeexal na saison ndax du mën a joué ci match boobu nga xamante ne Olympique de Marseille war nañ ko joué seen diggante ak FC Metz. Abdallah Sima moom nag dal dinay may ji nga xamante ni yow Slavia Prague ñu gagné beneen trophée ci saison bi nga xamee ne ni ki ay semaine képp ci ginnaaw ñoo nekkoon champion foofu la ca Tchèque waaye nag jamono yi daal dinañu gagné li nga xamante ne mooy coupe coupe réew ma kon jamono yi ñoom waa Slavia Prague double lañ amal ci saison bi gannaaw bi nga xamee ne gagné woon nañ championnat bi li ki démb ñu daal di li nga xamante ne mooy coupe ba loolu nag ki nga xamante ni moo waral ba ñu gagné jongante googu mooy kii di Abdallah Sima moom sax ci deuxième temps bi la daal di dugg maanaam ci deuxième période bi dal di marqué benn bii bi nga xamante ni xew na ci jogante googu la doxoon diggante Slavia Prague ak Victoria Pelsen kon Ibrahima Niane wala ki nga xamante ne mooy Abdallah Sima Bock moo dal di marqué benn bii bi nga xamante ne moo waral ba Slavia Prague dal di amal ab doublé ci saison bi foofu la ca Tchèque moom nag jamono kayit xibaar yi wéral nañu ne ki nga xamante ne mooy a Niane dal dina am lu toll ci 16 bii muy fukki bal ak juróom-benn ci 32 yi nga xamante ne ko ci saison bi ministre des sports bu Sénégal muy Matar Ba moom nag gannaaw bi nga xamee ne daf doon jébbale li nga xamante ne mooy drapeau bi drapeau national ci équipe bi nga xamante ne mooy beach soccer bi daal dina yëkkati ay kàddu di xam ne ne Sénégal jamono pare na ngir organiser li nga xamante mooy Coupe d'Afrique des Nations ci at yi ñu dëkkmal gannaaw bi nga xamee ne jamono yi ñu ngi tabax stade bu Diamniadio mu stade olympique boobule buñ ci jógee di yeesal yeneen ci ay stades yi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi loolu nag na ba jàpp na ne di fileekii du dara Sénégal dina positionné bu baax a baax ngir organiser li nga xamante ne mooy CAN muy coupe d'Afrique des nation waaye nag loolu nag jamono yi xëy na boo koy wax nit ñi ay ree la leen di def ndax kat Sénégal jamono yi benn stade boo xamante ni euh, mën nañ ci jouer match officiel sax amuñu ko bu ngeen fàttale ko euh, jamono yi ci ginnaaw rek euh, ñi nga xamante ñoo di CAF dañoo lànkoon ne Sénégal du jouer benn match ci dëkk bi ndax amuñu benn stade bi nga xamante ni jamono yi am nañu pelouse bu baax loolu waral sax ba ñu waroon a àbbe ay stade kayiti xibaar nag dal di wéral ne kon kàddu yu ministre bii ni moom ku ko dégg dalay defiree waaye daal moom jàpp na ne du yàgg dara lépp loo xamante ni aju na ci ay infrastructure rawatina stade da jamono yi dinañ ko dal di euh, dinañ dal di féetoo boor su ko defee Sénégal dina positionné bu baax a baax ngir organise li nga xamante mooy CAN di Coupe d'Afrique des Nations ci at yi ñu dëkkmal kii nga xamante ne mooy Ibrahima Dabo moom nag benn jeune militaire gambien la bi nga xamante ni mu ngi évolué ci club bi nga xamante ne mooy AS Roma ca moom nag nekk xale bi nga xamante ne 19 ans la am waaye daal depuis mu tàmbali jeu ak club boobu ba léegi moom Ibrahima Dawa toujours mu ngi wane li nga xamante ne mooy skills am di wane daal njàmbaarteem ci club boobu nga xamante ne mooy AS Roma ci fukki at ak juróom-ñeent jamono yi këyit xibaar yi wéral nañu ne xaat am na ay club yi nga xamante ne ñu ngi koy topp foofu la ci Angleterre club bu mel ni Arsenal ak Tottenham Hotspur ñaari club yi yëpp bëgg nañoo signé ki nga xamante ne mooy jeune militaire gambien bi di Ibrahima Dabo di évoluer nga xamante ne mooy ci AS transfer ba tey ki nga xamante ne mooy Miralem Pjanic mi nga xamante ne mu ngi foofu la ca FC Barcelone dem moom sax mu am saison bu difficile ak club boobule ndax manqué temps de jeu. kayit xibaar yi wéral na ne jamono Chelsea football club ak Paris Saint-Germain bëgg nañoo signé ki nga xamante ne mooy Miralem Pjanic mi nga xamante ay at rek ci ginnaaw mu ngi doon def jaloor yu am solo fële ci Juventus ba ñii di Real Madrid sax bëggoon ko signé waaye ñi nga xamante ne FC Barcelone a am ne dañoo wecce woon ak Juventus ci ki nga jamono yi nag moom Miralem Pjanic manqué temps de jeu waral na ba kayiti xibaar wéral nañu ne amaan na ci été bi dina génn foofu nga xamante ne mooy Douglas Costa moom moom benn brésilien la bi nga xamante ne jamono mu ngi yoon foofu la ca Bayern Munich gannaaw bi nga xamante ne Juventus ñoo leen ko abaloon moom nam kii xibaar wéral nañu ne dina dellu foofu la ca Juventus waaye du fa taxaw ndax Juventus dañ koy ablewaat ci benn club bi nga muy Grêmio jamono yi moom ki nga xamante ni mooy euh, Douglas Costa dina dal dem fële nga xamante ne mooy ci Brésil ci club bi nga xamante ne mooy Grêmio gannaaw bi nga xamante ni ñii di Juventus dal dinañ nangutoo ak club boobu la dal di able ki nga xamante ni mooy Douglas Costa ci benn at. ba tey ci transfert ki nga xamante ni mooy Jorginho Wijnaldum moom nag jamono yi kayiti xibaar wéral nañu ne daanaka mën nañu wax ne ay fan moo des ci contrat am wala bokk. ndax ci mois de juin bi nga xamanteni mom moom la ci la contrat wara jeex ak liverpool ndax gul ben contrat manam yokagul contrat bi jamono yi xibaar yi wéral nañu ne bayern munich bëgg nañu ko signé gannaaw bi nga xamé ne fc barcelona niki fan yi ñu génn rek kayiti xibaar wéraloon nañu ne dañu génn ci dossier boobule ndax baña indi li nga xamanteni moy galankor ci màggu ki nga xamanteni moy mariba jamono yi bayern munich ñom ñoo dugg ci ndax contact nañu agent wu joueur bi nga xamanteni moy jorginho wijnaldum ngir man ko am fofu nga xamanteni moy ci ca bayern munich ba tey ci transfert ki nga xamante ne mooy Gareth Bale nekk foofu la ci Tottenham moom kii di xibaar wéral nañu ne gannaaw bi nga xamante ne Real Madrid ñoo ko dal di woon ci benn saison bi nga xamante dafa ànd ak option d'achat kii di xibaar wéral nañu ne ki nga xamante ne mooy Bale plan bi nga xamante am na ko ci boppam jamono yi mooy dal delluwaat foofu la ci Real Madrid dal di jouer benn saison bi nga xamante ne moo des ci contrat bu jógee rek dal di jël li nga xamante ne mooy retraite maanaam dal di bàyyi football lii mooy plan ki nga xamante ni mooy Gareth Bale buy sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Tottenham nag am nañu option ngir signé ko muy permanent deal waaye daal ki nga xamante ni mooy Bale moom li nekk ci boppam buy sukkandikoo ci kayiti xibaar mooy delluwaat foofu la ci Real Madrid ki nga xamante ne mooy euh, Victor Moses bi nga xamante ne jamono yi moom ancien joueur bu euh, Chelsea football club la moom nag dañu ko able woon fële nga xamante ne mooy nekk ca foofu la ki nga xamante ni moo di Victor Moses euh, di Nigérien nekkoon moom kii di xibaar wéral nañu ne jamono yi Spartak Moscou dinañ ko daal di signé muy permanent dirham dinañu ko jënd gannaaw bi nga xamante ni dañ ko abaloon mu ànd option d'achat dinañu fay 5 millions yi nga xamante moom la Chelsea Football Club di laaj su ko defee ki nga xamante mooy Victor Moses daal di des foofu nga xamante mooy ca Russie ki nga xamante ni nag mooy Kylian Mbappé moom kayiti xibaar daal dinañuy wéral ne jamono yi Paris Saint-Germain daal dinañu teg ci taabal ji lu toll ci ñeent ati contrat ak xaalis bi nga xamante ni salaire bu toll ak bi nga xamante ni moom la ñu jubo ak Neymar Neymar bu ngeen fàttale ko ay fan képp ci ginnaaw ci la daal di prolongé li nga xamante ni mooy contrat am ak Paris Saint-Germain Paris nag daal dinañu teg ñeent ati contrat jamono ci taabal ji ngir ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé bu fekkente ne d'accord na daal dinañu ko jox salaire bu tolloo ak bi nga xamante ni moom la ñuy fay ki nga xamante ni mooy Neymar waaye daal ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé bu ñu sukkas na ko ci kayit xibaar yi dafa daal di dëxañ kayit yi ndànk daal di koy denc ne du ci wax du jël benn décision fekk demul ci euro bi ba dellu si maanaam jamono kayit xibaar wér nañu ne Paris Saint-Germain xamuñu ban réponse lañ war a jot ci Kylian Mbappé moo tax lu ñu mën ci góorgóorlu mën nañ ko def ngir signer ay joueurs balaa ñu jógee ci euro boobule ki nga xamante ni nag mooy Lionel Messi moom kayit xibaar daal dinañ wéral ne moom du bokk ci match bu mujj bi nga xamante FC Barcelone dinañu ko joué bu ngeen fàttale ko nag ñii di Barcelone jamono yi ñoom benn match moo leen dese ndax foofu la ci Espagne ñu ngi war joué 38e journée bi ci samedi ji waaye nag ki nga xamante mooy Lionel Messi du ci bokk ndax kat dirigeant yi dañu ko dal noppal gannaaw bi nga xamee ne gis nañu ne kat mënatuñu gagné championnat bi loolu waral na ba jamono yi ki nga xamante ne mooy seen meilleur buteur bi nga Lionel Messi moom daal dinañ koy noppal moom du mën a bokk ci jongante yooyu leen ndax kat jamono yi koy di xibaar bi doon nañu ne dafa war a joué li nga xamante ne mooy Copa América lii moo waral ba ñu teel ko noppal ngir mu war a mën a dem dall bu baax a baax balaa li nga xamante ne mooy Copa América boobule di tàmbali moom Lionel Messi moomu nag buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi nekk na joueur bi nga xamante lu toll ci juróom-ñeent at mu ngi nii moom Lionel Messi muy dugal lu toll ci fanweeri bal mooy benn joueur bi nga xamante ni daal dina def jaloore bu ni mel maanaam lu toll ci juróom-ñeenti sason yi nga xamante ni chaque année Lionel Messi lu mu gàtt gàtt lu toll ci 30 bi dina ko dal di dugal juróom-ñeenti at chaque sason bu nekk dina dal di dugal li nga xamante mooy 30 bi ci juróomi championnat yi a tugal maintenant Lionel Messi mooy ki nga xamante